ministre bi yor wàllu énergie moom moo jox njiitu réew mi li nga xamante ni mooy jëmmal ndorteelu exploitation pétrole euh, bu Sénégal. ñu ngi teg ci sa loxo euh, li nga xam ni toq la ci pétrole bi juddu ci suufu Sénégal la ci ndoxum Sénégal muy bi jóge ci Sangomar euh, kon bis ni ki tey ñu jàpp ni Sénégal dugg na ci kuréelu dëkk yi nga xam ne bii ñu ngi ay am togg pétrole wala li ko génne seen suuf war ko mën a jëfandikoo mu jariñ seen askan yàlla mi ngi dogal mi ngi nekk ci sa ci sa ay la ko yàlla defee yàlla na jural Sénégal amin amin mais di sant yàlla ci bu ñu ko wonee fii ci suñu réew ndax yàgg nañ ko wër sant yàlla aussi ci bu mu tombeeg suñu ay te di ko ñaan tamit mu jur barke ak naataange ci réew mi di leen ndokkeel rek yéen ministère de du pétrole di ci ndokkeel gouvernement bi yëpp ak euh, sous la conduite du premier ministre di ci ndokkeel tamit askanu Sénégal mi nga xamante ne moo ko moom te ñu di leen euh, digg ne rek dinañ ci dañ ko saytu ci nu mu gën a rafetee ak ci nu mu gën a baaxee ci pour njëriñu Sénégal yi fi nekk ak Sénégal yi ñëw ëllëg incha allah.